secret lan la <laughs> secret bi secret bi ba macha allah xam li ngay di récupérer normal loolu tamit da xam naa ne semaine ngi ni rek lekul ciép. semaine lekul ciép, wa. Lo wax rek mune la ciép bi moom baax na <laughs> waaw Bombardier sama dom bàjjen la Papa ak sama yaay ay sama yaay ak papa ay dom mag ak lañ Wa man man baaj sama bàjjen moo ñëw ba suñ kër wax ak samay waaju ñëw tamit wax ak doomam doomam tamit dégg ndigal ne ko waaw. dafa dem wuti su amee njaboot rek moo ko tax a génn su amee rek day ñëwaat ci kër gi ñu toog ma toog ci kër gi gérer ko njaboot gi. lu ma koy conseillé comme ni mu bëree nii tey rek xam nga ne bi démb rek nee naa ko baal ku la ne laar rek nga ne bëre topp ko deel def ndànk ndànk ndànk ku la laal ngay bañ. mun naa ma yow daal bu may bare bëreeg Balla Gaye lu ne ngay wax ma ne ko waa noonu la dama lay conseillé rek léegi nag boo demee ba ci digg géew bi yow tamit yaay xool li la arrangé nga def ko xam nga ni mu def nii tey rek moom nii moom noonu la dëgër bopp moom def na ko ndax moo yaay rek léeg ñu ne ŋàjj ci benn affaire <laughs> dëgër bopp moom def na ko waaye nag moom bu xamee ne sos nga rek moom mu ñëw ci mu fekk si la moom waaw ndax léeg moo gaay mi fii rek mbay booy ki tuddee doomam bi léeg-léeg mu ne ko yow moom sa waay ku dëgër bopp nga waaye tamit bu xoolee ba xam ne loolu ñu ko wax yoon moom loolu lay def goro tamit moom tamit ñu ngi koy ñaanal rek yal na ko yàlla bàyyi suñu kanam ba ca kanam a kanam a allah ndax moom tamit moom goro bu baax la daal sonalul kenn moom man ma bañ naa ko ba defuma ko goro sax maam laa ko def ndax man duma ko wax sax bàjjante sama bàjjen la ay sa booy laa koy wax ndax moom tamit moo sama maam ndax ñun ñëpp ay mbokk lañ da daan ànd ak sama maam bi yuur sama yaay léegi sama papa damay yow de dangaa bàyyi bàjjen gi jël maam gi mën a ko waaw waaw moom tamit moom maa ngi koy ñaanal daal gudd fan gu ànd ak wér gu yaram mu bëgg moo ko xam yàlla ko yàlla defal. waaw kooku moom dañ koy ñaanal fu mu tëdd rek yàlla ko gënal fu fi mu jógee duñ ko mas a fàtte nag saa su xool yi ak xalaat yëpp mu ngi ci moom ñu ngi koy ñaanal daal fu tëdd yàlla na ko gënal fu mu jógee fuuf ci wéetal nañu torop nag waaye xam nga moom jaam ak pexeem yàlla ak dogalam yàlla moom soxlaa rek jaam ñàkk ndax bu doon def lu baax rek moo ko fi bàyyi moom du fi jóge moom wax dëgg yàlla déedéet lool sax lool ndax gis nga kii bi ma sëriñ waxee koo bëgg ñu tuddee ma jox la ko nga tuddee ko sa famille dama ko ne Pape Dia mu ne ma doo jël tuddee ci sa famille ma ne ko Pape Dia kay sama famille la jëlal ma Pape Dia moom tamit mu fekk si ma ci li ma ko wax waaw moo tax gis nga ko moom it ci sama xol bi laa ko def fu ma jëm rek maa ngi moom waa Mbour moom amuñu seen fay yalla mi am seen fay rek lañ leen di bayel yalla na leen yalla fay ñom ñepp ndax gis nañ li ci bëccëg xalé yi ñu ngi fi sonn fi lool ne ci naaj bi ci open press ba gis nga tay ji tamit gisaan nga fi ne ñu ngi ni fi wak sëriñ ñewul duñ fi joggé wa ñu ngi leen di ñaanal daal li ñu bëgg ñoko xam ma ngi sant sama wa koñ tamit di leen gëreem ndax dañoo yore fi benn groupe whatsapp jeeg gi mooy ñoon di bale waye ñoomit fan yi groupe bi yépp yalla nako ko may ndam yalla nako ko may ndam liñ doon na ñaan nag yàlla def na ko maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñaani yàlla nangu na ko yal na leen yàlla fay ñoom ñëpp